gannaaw manifestation yi nga xam ne boobaak léegi mi ngi am ci réewum Sénégal ay magasin yu bari yu ñu dajji commerçant yu bëri seeni alal dem ci noonu Aziz di kuréel gi njaboote commerçant yeeg industriel yi nga xam ne ñoo nekkee ci réewum Sénégal nekk ci dëkk bu sell bii di Touba di naqarlu jëf ju ni mel. di am naqar ak tiis lool ci li nga xam ne xew na démb fii ci eh, Sénégal ci diwaanu Ndakaaru te mu dal ci commerçant yi nga xamante ni ñoom commerçant yi ci boppam. saa su manifeste amee rek ñoom la yëpp lépp dal di di dal seen kaw ndax ñoom la ñuy tee liggéey ñoom la ñuy yàq seen i bagages ñoom la ñuy yàqal kon nag loolu jot na ñu def ci taxaw seetlu. bu ñu sukkandikoo ci galas xuma mi jiite kuréel gi mu ne nag loolee day wane ñàkk aar ku ñu leen ñàkk aar waaye tamit ñàkk leen a sàmmal seen i alal loole nag ñu ciy joxoñ baaraamu tuuma nguur gu Sénégal. seetlu nañ saa su manifeste amee rek lépp ci ko commerçant yi lay yàqu ndax ñun la ñuy tëj suñuy place ñu la ñuy tee liggéey. ñun la ñuy yàq suñu alal loolu nag ñu ci woo état bi nga xamante moom ñun commerçant yi nga xamante ni ñun ñoo leen bàyyi fan nekk ndax ñoo leen di fay suñuy TVA suñ mënee gundaandaat wala ñu mën a def loolu leen bëgg a def wala ñuy fay seen i lemp wala ñu fay seen i ñun commerçant yi ci lañ koy jege te saa su manifeste amee loo xamante ni lu jógee ci ñoom la ci suñ kaw lay dal responsabilité moom li ñu mën a jàpp rek mooy état rek la ñuy teg lépp ci kawam ndax moom mi nga xamante moo war aar doomi Sénégal yëpp kenn ku ne ñu aar la ba sa yàqu-yàqu kenn wur ànd ak loolee yi nga xam ne jot nañu koo am ñoom commerçant yi la dey nañ bu ñu noppee ab enquête dinañu ko amal dàq ñu itam porter plainte état bu Sénégal jàpp naa ne sax moom li nga xamante ni ñoo ñoo association commerçant yi war nañoo def suñu enquête fexe ba xool li yàqu lépp ñu dee ñu ñu ñu ñu ñu xayma ko xam nu mu toll bu jaree porte plainte sax ñu porte plainte euh, porte plainte teg ko ci kaw état bi ne ko mooy responsabilité bi ndax lépp loo xamante ni sunu euh, sunu alal la dañuy yàq ko moom jàpp naa ni bu jëlee matukaay yi nga xamante ni moom la war a jël ndax moom moo war a aar ñëpp moo war a aar ñëpp te lépp loo xam ne mi ngi koy def ci responsabilité bi ndax moo war a sàmm réew mi sàmm doomi réew mi ba seen àll kenn du ko yàq. yëngu-yëngu yi nga xam ne nag boobaak léegi mi ngi am ci réew mi li ñuy sàkk moo di ñu aar yile commerçant ak seeni alal. maa ngi woo Sénégalais yi nga xamante ni dañuy di yàq di dem ci station yi ak dem ci borom place yi nañ xam ni alali Sénégalais la yàq waaye si yàquñu alali nguur gi ndax ay doomi Sénégal ci boppam ñoo dajale seen dërëm ak seen ñaar dërëm ngir def ko fa ngir bëgg koo mën a saytu xañ boo tuddee total ñu ni jëmmi société bi français ko moom waaye jëmmi total ci boppam même bu jëmmi tur ab Sénégalais ci boppam moo ci investir xaalisam ñëw di ko liggéey nañ ànd ak seen xel ak seen xalaat te taxaw résister woon gouvernement bi ni ko lii moo na naqari te bàyyi yàq alali euh, commerçant yi. waaye tamit di ñaar ñooy manifestant yi ñu bàyyi xel ci li ñuy yàq ndax jàpp nañu ne lu ci ëpp ay doomu Sénégal ñoo ko moom.